ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa Cheikh Mamadou Moustapha al sëriñ Cheikh Mbàkke Madina jëwriñ ji Daaru Xuddoos sëriñ Abdourahmane Mbàkke xalifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma ci ndigalul sëriñ Moustapha Mbàkke Astu Buri Nayde waa fédération Muxsinina lëkkale mbooleem daayira yi aju ci kër sëriñ Moustapha Mbàkke Astu ñoo ànd di leen yëgal màggalug Daaru Xuddoos bis bi sunu borom tànnee dëkkaale ak Xaadimu Rasuul ci dëkk bu août Daaru Xuddoos kër Serigne Moustapha Mbacke Astou Boury bi di soññu jëwriñ yi ñu teel caa farlu te fonk ko te waajal ko ci jàng alxuraanul karim xasida istighfar ak salaatu ala bu ñu demee ba ca tàkkusaan ga nag fédération bi daañu àndandoo siyaare Serigne Moustapha Mbacke Astou yeesal seenu jaayante ñaanal ko sàkku ci moom ñaan fanaanee jàng xasida ba asamaan set fédération bi di soññi jëwriñ yi dayri yi bëgg jëwriñ ju ci nekk soññi ñu ak jigéen waa daayira Kellel Diop membar yu góor ak jigéen waa daayira Cumpu membar yu góor ak jigéen waa daayira Ngaay membar yu góor ak jigéen waa daayira Kuuré membar yu góor ak jigéen waa daayira Tucil Maxangol membar yu góor ak jigéen waa daayira Loro membar yu góor ak jigéen daayira Jawle membar yu góor ak jigéen waa daayira Jaajax membar yu góor ak jigéen waa daayira Louga membar yu góor ak jigéen waa daayira Touba Jobaas membar yu góor ak jigéen ak mbooleem daayira yi nekk ci diaspora bi Afrique Europe Australie ak Amérique ñu ngi ko yëgal jullit yi taalibe yi xarit yi sopp yi dëkkandoo yi wala rëy ak am ji jàmm yi di soññi jëwriñ ñi fédération bi ak mboolem membre yi deyri gor ak jigen mak ak ndaw ci réew mi ak bitim rew nangi ñaan laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aajo barke khadim rasul barke sey mamadou mustafa barke sëriñ cheikh amadou mbacke gayne fatma barke sëriñ mustafa mbacke asbouri ñaar fukki guddi ci weeru tam xarit ku ko xam farlu ci magal ko ngir cheikh bamba laq ci ndam ngir jaamu yalla ak yonen bek mustafa ci la raw mboolem bi ndef yi mu tim leen féete ñepp ca kaw bamba teral alquran tay ba ñu seddu ko cër boole ca yeesal sunna yonen ba doon bëgg far limaanu lislaamu wal ihsaanu moo ñangal sarixatoog sunna ak haqiqa moko jëmal di sey xibamba bamba bur yalla dong ko xam xam ak Moustapha xayru xalqullaahi may sëriñam na yàlla ko leer jéggal ko ful ngërëmam te faj sunuy aajo nuk texe feek fa la qualité fait la différence